te teggin même bu fekkee ni sa principe de la séparation des pouvoirs amul Sénégal assemblée baa ngi ci waawam mhm. justice baa ngi ci waawam sëgg na waxuma ko magistrat yee ko wax ñoo ñaan indépendance suñ toll nee na ñu ngi ñaan indépendance même su fekkee ne loolu amul mais corps de contrôle ba nga xam ne dafa bokk ci pouvoir judiciaire boobu mhm. te yow foo toll yaa ngi wax gouvernance xam nga lan mooy première chartam mhm. daf ni ñuy publier rapport yi at mu ne daf ne at mu nekk ba pare boole ci ni bu mu am retard maanaam bu at mi jotee rapportu daaw bi ñu publier woon ko janvier daf ni bu janvier ñëwee bu at ma dellusee mayuñu la nga publier ko février xanaa looloo gën a de nga toog juróom-benni at bañ ko publier ba dégg naa lettre bu ñu bind bu ab magistrat bind ni la loolu bokkul ci bonne gouvernance parce que noonu lañ ko waxee ca charte ba dañ ni ca charte ba la bonne gouvernance voudrait que chaque mm. année ñu koy publier mu ne ñaareel ba na président bi ci boppam déclassifier rapport bi mm-hmm. pour nit ñi askan wi xam lu nekk ca rapport ba mm-hmm. parce que jàpp nañ ni li ñuy contrôler ca comptable public yi xaalisu askan wi la askan wi la ñetteel ba ñu ni ko jàdd nañ ko teg ci yoon mm-hmm. bu dee cour de comptes dafa def ci rapport am ni lii dafa war a dem tribunal jox ko garde des sceaux charte bi def ni bu président def benn influence ci garde de sceaux ba garde des sceaux di def influence boobu ci procureur. président de commission la wax. <laughs> loolu ba jaaxal commission sax nag daf ko jarul. parce que commission bi loolu mooy li yéen rapport yi ngeen def moom kay li gën a yomb mooy na leen wax bu ñu defati rapport. parce que moom rapport Cour des comptes yooyu daf ko waroon a ériger en directive présidentielle. Mhm. looloo doon maandute. tey itam bonne gouvernance bi muy wax pour ñu gëm ko loolu rek la mën a doon. Mhm. ndax bul wax nga jamonoy Ablaye Wade ñun de jamonoy Ablaye Wade audit boo xam ne IGE IGE bi nga xam ne ci exécutif la bokk de. Mhm. bokkul sax ci pouvoir judiciaire. IGE waxtu woo xamee ni def na directive directive bi automatiquement dañ koy ériger. en en en en directive présidentielle man de mës naa laaj exceptionnellement IGE na ñëw seet si ma sama ministère ndax boobu dañ ma doon door a jox crédit des femmes. ma bind sama premier ministre Macky Sall. xëy na bu fàttali ko yooyu dina wëlbati affaire yi. <laughs> moo moo mais yow rek ca diggante Macky Sall man kaa dem daal. ah day na kaala wa des doy na kaa de. yow ni ko jàppalee woon ba mu nekk biir PDS. bëgg ko. ni mu nekk numéro 2. bëgg ko waaw genn wàllu PDS yëpp ko. mu xam ko njabaram xam ko yow. waaw fu mu yow yow. fu bala moo dem fenn ma jiitu ko fa jiitu ko fa. waaw ndax bëgguma mu am benn quoi. waaw. 42 mois yi ba amoon ca Fatick. maa la ko wax kooku sama yaay la moom. 42 mois yi mu nekk premier ministre yëpp. maa nekk ministre de la femme parce que yenn ministères yi sax amoon na jeu de chaise. waaw man nag. keroog bañ ko nommé le 21 avril. 2007 le 22 lañ ma nommé. biñ ko démettre ci euh, kile biñ ko démettre ci premier ministre. Uh-huh. le 19 euh, euh, juin. 2007 uh-huh. ñun ñaar lañ dindeendoo. man daal jaaxal na ma daal loolu jaaxal. waaye intérêt bi rek mooy xam na ma xam naa ko. ma bind ko lettre. ni ko PM man dama bëgg ñu auditeel ma mun ma ay dem bëj yow. ministre looy doyee IGE ma ne ko ankay parce que coowal jigéen ñi duma ko nangu te comme dama bokkoon ca ña doon coow. Hmm. parce que li tax ma ne la lu bëri waroon na ko jàng ci waat lu mag def ba dee bu dekkee war na koo bàyyi. Hmm. gis nga Samba Diallo bi nekkoon Senelec moom lañ may yónnee IGE. gis nga dix directives yi nga xam ne moom la di dix euh, recommandation yi mu def mm-hmm. dañ ko def mm-hmm. directive présidentielle directive présidentielle lañ ko def nga xam ni loolu loolu moom Wade daf ko daganaloon waxuma laay na Cour des comptes Ablaye Wade ñoom Modibo Diop ak bay la dañ leen di jàpp booba Cour des comptes moo leen épinglé mm-hmm. mieux même chambre administrative cour des comptes bi nga xam ni civil yi lañ ko réserver nga xam ni yeggul ca sanction pénale bu ñuy jox procureur suñ la ci mësee ñëw ba def recommandation ni kii bu mu assumer bi mu assumer ti benn fonction administrative wala benn fonction de pouvoir bu mu nekkati nekkati ordinateur de crédit dootoo ko nekk loolu gisuñu ko fii loolu nag lu doy waar la lu grave grave la parce que cour des comptes ñun même assemblée député yi institution bu ñëw ñun ñun opposition bi bu ñu neexee voté bu ñu neexee bañ a voté cour des comptes dañ koy voté budget à l'unanimité parce que institution yi taxaw bareetul te moom bokk na ci jusqu'à présent yi nga xam ne taxaw gum nañu. Hmm. ñu jàpp ne dañ ko war a crédibiliser parce que. ku mel ni ñun de suñu parti alliance nationale pour la démocratie dafa bokk ñun suñu programme bon gouvernance daf ci mm-hmm. bokk mooy transparence mooy sanctionner ñi nga xam ne fauté nañu mooy euh, euh, euh, kii régulation ci ci ci ci ci gestion bi des deniers publics donc loolu mooy crédibiliser Cour des comptes te Cour des comptes bu sanctionné wul moom rapport yi nga xam ni génn na ko d'autant plus que rapport yoo xam ne man bu doon sama soog bu ñu ko déclassifié nañ koy wax en wolof parce que ñun kat Pape Alé kee ñu ca am. muy le maire de Lambaye. nee nañ muy directeur général. aussi non léegi xam naa ni ma koy def bàyyi ma jël ko wolofal ko ci biir. Euh, jar nay jar nay wolofal de. du ko wolofal parce que xam nga kooku suñu nee. suñu nee mu ngi def ay juróom-ñaar fukki millions. Hmm. ci ci ay euh, kile nu mu tudd tuddati ay indemnité de déplacement parce que dafa ñëw bawal. te bawal man maa gën a mën a taxawaalu. Euh, euh, màggal gu jot bu ma demul yónnee naa. rajo ba ca baam Bambey day retransmettre en direct màggal yëpp te kenn déggu ko fenn. kon xam nga ne kooku bu jëlee juróom-ñaar fukki million président Macky Sall moo waroon a sax jëkk a sanctionné parce moom la jëkk a tooñ ndax moo ko waroon a nekkal foofu. dëkk ba mu nekk dëkku dëkku kilifa la ay kilifa diine ñoo fa nekk. bi Serigne Touba waree euh, wañ ñu war ko assigner résidence surveillée dans le Bawol. biñ ne dañ koy indi Bambey daf ne trois de ses principaux lieutenants ñu ngi à moins de six kilomètres de Bambey muy làmbaay googu kon dëkk boobu ku fa dëkk ñuy defi cant di defi màggal di defi ñaan di defi kaamil gisuñu la dégguñu la ñu ne fa ngay liggéeyee jël nga fa juróom ñaar fukki millions yoo xam ne danga ne woon da ngay dem ca dëkk ba ca dëkk ba ngay wax parce que dañ ne lay dem ak Gosaas te Jurbel ak Gosaas ay weekend la fay def def euh, euh, frais de mission yoo xam ni fa muy liggéeyee ca ndakaaru ñoo ko war a fay te ñun gisuñu ko dégguñu ko loola xam nga ne teguwul fenn te yooyu la cour des comptes génne moo tax ma ne la faawu ñu ko de wax en wolof nax na ñaar fukki ñaar fukki rapport ak ñett lañ déposé ko. te procureur waxu ci dara. waxu ci dara te Seyna bu wax na ko ko de. ah wax na ko. ah da parce que nag gis nga ñun su nuy su nuy wax naan nañu fal jigéen ñi. dañuy xool tam jigéen mm-hmm. loolu moo tax am na lu ma déggandeem ci affaire li nga doon wax léegi ci affaire mairie Dakar. Mm-hmm. ni dañ buñ ko dañ koy nommé dégg naa ñu ni Aminta daf ci wax dégguma ko nag. mais dama dégg ñu ni Aminta Mbengue daf ko proposé au niveau du haut conseil bu mu ko def Aminta weesu na loolu moo mag loolu. Mm-hmm. parce que doo doo doo nekk kilifa ba yegg ci juróom fukki at. nga xam ne tey ay honneur rek nga war a am jigéen ñëpp yoral ko njukkal. muy wàcc boppam ci loolu. te nag wax dëgg yàlla su defee loolu la nga waxoon dinaa ko bëgg gëm Macky dafa ay ci ndaanaan. yii suñu la ah, waaw loolu maa ngi koy bëgg gëm parce que bu ko defee dinañ ko weddi te loolu baaxul ci moom bu mu ko def man fii laa ko koy waxee de façon solennelle sama mbokk la sama mag la mais maa ngi koy wax de façon solennelle ni ko loolu àddina jaru ko te nag man président bi gëw ma ne xaritoog moom wala bëgg koo jàppale dina jar yenn yi ndax Nafi Ngom Keita mii ñuy wax ci OFNAC kenn gënu ko wane jege Macky Sall. Mm-hmm. mais moom li mu bëgg soo ci jaarul mu defante ko yow. Ah. loolu moo tax toujours wax naa ko keroog ci sa libre ba. Mm-hmm. nee naa la ñi nga xam ne dañu nekk en exercice nañu moytu. bu ñu bu ñu def naka sudul noonu bu ñu dal ci kaw kenn parce que ëllëg ak si biir kenn du leen mën a soutenir. Mm-hmm. parce que dañ naan bañ ca nekkee. wut lu ko neex moo taxoon ñuy def naka sudul noonu. te moom kat buur dëgg la nag. buur daali la sax liñ naan buur du mbokk <laughs> koc bar maa ko <laughs> waxuma ko moom daali la nag daali la de buur la buy nguuru oh. kon nag nekk xaritam ba tax nga fi proposer loo xam ne defuwul loolu kenn du la ko nangul te cër ba nga amoon ci nit ñi da koy ñàkk te nga ciy mujjee rek da koy ñàkk dund gu seer na de lépp a yokku dund bi de weesu na cher eh, waaye ñun dañ ko prévoiroon ba ñu nee dañuy. waaw yéen yaa ngeen ko wax opposition bi. ba sama intervention bi ñu yokk carburant bi wax naa ko ko. Mhm. ma ne ko yéen a ngi yokk carburant bi mais léppay yokk bu ñu yokkee électricité bi léppay yokk parce que chaîne la. waaw mhm, absolument la parce que ñiy jaay itam jaayuñu pour perte. Mhm. ñiy jaay jaayuñu pour perte donc dafa am loo xam ne dafa essentiel te mënta ñàkk su fekkoon ni encore une fois ñu ngi koy tegale ci yoon mais xoolal àll beeg suñu paysan yi. waaw gerte gi ren sonn nañ. mais sonn nañ mais Moustapha Cissé seloo wax nañu lu tax man de nee naa leen duma ci wax. parce que mu ko waxee tamit fa mu ko waxee fa la ko war a waxee. fa la ko war a waxee. assemblée nationale moom ba pare di premier vice président. waaw ba pare nag wax na ko nee na man liggéeykat laa ci gerte. dëkk Bawol ba pare défier leen na leen soo leen. kenn tontuwul kenn tontuwul kenn tontuwul. ba léegi kenn génnewul liste la mu ña doon tuddoon ci liste ba weddi wunu muy lu ñaaw muy lu ñaaw muy ñaaw dama koy ñaawlu di ko naqarlu di ko naqarlu ci sama tur di ko naqarlu ci sama turi bokk ya nga xam ne ñoo nekk ca bassin arachidier jiba mhm. chinois yi kenn waxul woon ni bu baykat yi jaay mais fi mu nekk jënd nañu parce que ñoom ñoom defuñu chèque ñoom seen xaalis bu bari la ñu jël dugal ko ci biir seeni saako mhm. mboros saako yi dem jënd bu boobaa nag gouvernement bi mooy perte Pape Alé parce que gouvernement bi moo subventionné semence yi. Mhm. ñu ñu bay génnewuñu wuñu semence yi lu dul jël gerte gi xaalis bu teew ñëw ñu jaay ko kuñ ko jaay jaayi ko sénégalais yi nga xam ni huiliers yi nga xam ne dañoo ne waral am lu ñu liggéey euh, am seen place ñu daal di koy jaay chinois yi chinois yi génne ko yóbbu léegi nag ñi nga xam ne ñoo war a liggéey amatuñu lu ñu liggéey. ñi war a defal diwlin amatuñu lu defal diwlin ñu commencé dàq d'ailleurs ñu commencé dàq waaw koppel mhm, ñu ngi dàq parce que huile ci seen bopp ñoo amatul matière bu ñu liggéeyee dëgg la parce que amuñu gerte loolu buñ ca tegee yow nga ne uyee maa ngi ca kaw ku ma neex laay jox jël ay bon di ko jox ay nit Moustapha ba mu ko waxee ba léegi ku ko weddi moom kay def na leen